jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM euh, ñoo ngi leen di nuyu seen émission pencum réew mi euh, comme li nga xam ne moom lañ si baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité docteur Macoumba Diouf mu nekk maire bu laat Latmingué waaye nekk waaye tamit mu nekk directeur directeur de l'horticulture horticulture nag bu ko waxee. ñenn ñi dañuy wax euh, mbayum dër ñenn ñi di wax mbayum noor mais culture mooy lépp loo xamante ni aju na ci wàllum euh, légumes céréales ak euh, yu si aju docteur ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax di la gërëm ci invitation bi mais surtout di nuyu sa auditrice ak sa auditeur yu. yu Rewmi FM nga xam ne ñu ngi koy déglu moom. rajo bi fii ci Sénégal ak fépp ci diaspora bi. Euh, docteur Macoumba Diouf euh, émission bi nag li ko waral mooy lu jëm ci wàllum euh, surtout e, tabaski bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal. ak wàllum pomme de terre ak sobleek yu si ajo waaye du mën a ñàkk ñu laaj la euh, démb ci ajuma euh, ji njiit réew mi di président Macky Sall euh, biñ koy force Covid 19 bi biñ koy jébbal li nga xamante ni tey moom mooy seen rapport final bi. dafa yëkkati ay kàddu nee na coronavirus bi ma ngi law ci réew mi te tabaski jërul nit ñi di déplacé wu. Uh, nee na tamit bu mbir mi gën a yokk dinañ jël yeneen matukaay yow lan moo ci sa xalaat. man daal rafetlu ko lool laa def. li ko waral nag naa la ko wax moo di ne boo fàttalikoo ca ndorteelu mbas ma am na nu mu ko géré woon moom président de la république mooy li ñuy wax anticipation maanaam teel a fagaru am matuwaay yu mu jël ba xëy na mbas mi jógu fi ba léegi gaa waaye ñëpp mën a nañoo seede ne bu du woon matuwaay yi président jëloon ci jamono jox jooja heure bi maa day taale xëy na leneen la ñuy wax. li dëggal loolu moo wax mooy ba ñu la ci àdduna kulluhum ni mu toll nii nit ñi sayto woon kilifa yi réew yi sayto woon mbas mi ci seen réew ca jamono yooya Sénégal moo jëloon deuxième ci àdduna bi loolu lu rëy la lu war ne woon ne matuwaay yam jëloon mooy yu baax ya waaw kon bu nee nañu respecté geste barrière nañu ñàkku ngir mën a ndar képp mbas mi ba am fu ñu ko téye am fu mu dul yekk ba yàlla di dogal mu tàggoog ñun mu ne loolu lañu ko def parce que bu ñu ko deful moom dina jël matuwaay yeneen xëy na yu niroog ak yu méngoog yam jëloon muy matuwaay yu tar ci koom-koomu askan wi tar ci askan wi ci boppam waaye nekk loo xam ne am na fu muy toll daanaka def fii sës ci kilifa bu sa responsabilité doon aar sa askan ay la yéwén ñaanu ko nag waaye bu nit ñi wéyee di ko def fooguma sax nag yaakaar naa nit ñi daañ déglu bu baax te daañ jëfe li mu wax. donc uh-huh. bu ñu ko deful lii ñëw man bu waaye dinaa ci ànd. ndax nag loola mooy gën seetaan ba am nu askan wi loofee ci mbir mi kon nag maa ngi fàttali sama bopp di fàttali askan wi ne. loolu président wax pour askan bi pour ñun ñëpp la. kon nañu respecté. geste mesure barrière yi di takk suñu mas di raxasu set di laal gel di éviter ak regroupement yi fekk nekkul lu mën a ñàkk waaye surtout ñàkk yi am na lu ci door ñu ngi xaar 500000 doses fii ak daanaka fukki fan jëm fukki fan ak juróom maa ngi ñaan nit ñi ñu ñàkku waaye rawatina nag. ñi nga xam ne ñoom ñooy cible prioritaire yi mooy suñu mag ñi nga xam ne soxla lañ leen lool ñu gën a yàgg ñun ak suñu mbokk yi nga xam ne dañoo tawat am feebar yi nga xam ne daanaka xajoowul ak mbas mi lii daal mooy message bi nga xam ne maa ngi koy lancé te comme Tabaski mu ngi ñëw muy waxtu feet nañ toog comme ni président wax waaye bu ñu toogee ci biir kër yi ci biir kër yi parce que bu ñu toogee ci ci biir kër yi uh-huh. jëlal matuwaay yi jafe-jafe mën naa am. d'accord mais docteur léegi euh, ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñenn si ñoom démb dañoo génn benn communiqué nee nañu président Macky Sall moom mooy responsable troisième vague bi ndax moom moo def benn tournée économique boo xam ne wër na Sénégal mbooloo mu baree bare topp ko loolu lan nga ci tontu. li ma ci tontu mooy loolu amut loolu wër lu leer laa lay wax benn fii mbas mi. gën a doonee coow tey fii may wax yow nii yow nitu presse nga yaa ngi suivre mooy dëkku taax yu mag yii mel ni Dakar. fii la mbir mi jàllaa ñëw waaw fii lu fi président def. fii lu fi opposition ak ñi tuddee seen bopp société civile def ñoom bañ ne ko banlieue wala moo xam fu ñuy jógee xaw ma fan la d'ailleurs jëm obélisque loolu lañu xam fii balaa di leen indépendance moom fi mu xam mooy. dem pale liggéeyal askan wi jóge fi dem ci askan wi inauguré lim ko liggéeyal tegal ko xeet ci lim ko nar a liggéeyalaat waa ñaañooñu kan moo indi coole ñooma beneen preuve mooy gox yi mu demoon Fuuta ci ci gën a siiw la bokk Kaffrine ci li gën a siiw la bokk Kédougou Tamba euh, euh, euh, daanaka Kolda ci ci ci ak Kaffrine ci ci siiw la gën a bokk est-ce que dégg nga fa mbir mi jàllaa ñoo fa waxuma ne amu fa nag waaye du fa coow mbamb gi. ndakaaru gii la. te ndakaaru opposition soit disant entre guillemets opposition parce que loolu moom du opposition. lan lañ xaw ma ay mineer gemb la ñu xaw ma du ma mënuma ko doon waaye kenn du ko doon la ñu xaw ma daal lan lañ waaye wax dëgg yàlla nag man vraiment seen comportement nawlawuma ko li tax nag mooy opposition. da ngay responsable responsable ci opposition mooy boo gisee lu doxut parce que lépp nag na leer mënta tëb doxandoo du dëkk bu ko defee nga ne lii moom doxut waaye waaye ah, rek ah, rek te bu ca yem nga ne man bu doon man nii laa koy defee pour mu dox te nga am profit maanaam nga am matuwaay ak melokaan ak xam-xam ak toogaay bu tax ba boo ko waxee nit ñi mën koo gëm li dox nga ne lii moom dox na mais loolu mooy opposition mais ñoom liy wax ci tubaab nihilisme moo leen feebar bi ñuy wax nihilisme mooy euh, gëmm ne du ma gis dara wala janoog naaj wi nga ne non lii du naaj weer wi la te fekk mu ngi lay lakk te weer du lakk kenn donc lii daal. mais mais opposition bi ñuy def rassemblement lan moo tax président terewu rassemblement yi. mais euh, wax nga wax bu leen tere woon te boobu boobu sax xëy na mbir mi yegsewul fi mais bu leen tere woon fekk ñoom ñooy yëngu fi mbir mi mën a jàllaañoo. mooy ndakaaru gi affaire bi ne xam nga loolu rek doyoon na lay ci mu tere leen mais bu dañ ko naan yow nag yaa ngi nii di dem tamit ci biir dëkk bi lu tax nga ñuy tere te boobu day fekk feebar bi ni mu fi toll ak rythme bi mu fi demee garaawaay ba jaroon na xëy na mu njëkkee fii waaye bu ko defoon ñu ne day politique loolu mooy sama tontu ci yow mooy mooy bu ko defoon li nga naan moo tax. Euh, mais fi mu nekk nii nag ñëpp ci maase yam ne li ngeen jot a def gis ngeen li mu jur. waaye nag na fi yem. jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf euh, moom mooy directeur bu euh, horticulture léegi nag ñu wax ci président Macky Sall fan yi ñu génn da doon jox ñi nga xam ne ñooy baykat yi ay ay matériel agricole wax na tamit ne dafa bëgg moderniser li nga xam ne dafa bëgg modernisation agricole la président wax léegi yow loolu mu wax yow lan moo ci sa xalaat ak tamit ndax jàpp nga ne tamit lu faisable la. lu faisable mooy luñ mën a def. passé naa doon luñ mën a def. na koy def. waaw moom la woote woon moderniser mbéy mi mooy dëppali ko ak jamono sëñ bi mënuñu béy continuer béy na maam doon béyee mënta ne kon duñ bougé fii ñu ne population bi yokku na maanaam ci lim ci ay doomu aadama yi ñu war a dundal dafa yokk suuf si yokkuwul li ñu soxla pour dund ak jaay am koppar faj ci ñu soxla yokk waaw loolu jarul ma lay wax ne kon il faut li ñuy am ci suuf si. yokku lan moo mën a tax mu yokku mooy modernisation boobu mu wax mooy dëppale ko jamono ci naka mooy jiw yu baax yu ñu certifié yu am rendement nit ñu jot ci loolu ci modernisation la bokk engrais ku ne xam nga ne mënta ñàkk ci mbéy na jamono ji nga xam ne suuf si fu bëri dafa sonn mu subventionné dimbale béykat ndaw yi ak lan xam nga ne moos boo bëggee béy lu gën a yaatu pour yokk jaar fa yokk rendement waaye yokk aussi production bi maanaam yokk superficie bi ngay béy waaye yokk li ngay am ci hectare bu ne loolu boo ko bëggee il faut nga mécaniser maanaam il faut nga jël mbéyin moo xam ne ci diir bu gàtt da ngay béy lu yaatu ci diir bu gàtt da ngay béy lu yaatu foo waroon a xëy ak sa peeru fas no ak sa benn fas sa peeru nag ak sa mbaam pour nga def hectare mu bugg laa të nga yore tracteur bu yóbboo sax mu nekk ci groupement wu béykat parce que am na ñoo xam ne du ay nit lañ ko jox ma leeral la ko. liñ doon joxe noonu am na yoo xam ne du kenn nit de ay kuréel lañ ko jox ay kuréelu béykat. benn tracteur jox waaw waaw waaw nga xam ne day bëgg di wër ci nangami dëkk di labourer nit ñi di maanaam bokk ci kuréel gi da nga baax li ma wax. Mhm. bu ko defee doo xaar sa usine sa machine parce que day xëy def ay hectares yi bu bu ceebu mi dikkee rek bu tawee bàq bi tooy pour day daanaka ñiy maase am nji mu mag day bari ndax matériel boobu day am aussi. sama bu muy ànd boo xam ne day day ji juróom ba juróom benni rang fala boog tracé ci benn yoon mel ni fas nekkul fas da ngay dem benn yoon ñëw de ak maam ak déedéet a ah, jeex na waaw mais xam naa ne suñu mbokk yi ñuy dëggal uh-huh. surtout waa Ndakaar yi nga xam ne xamuñ lu ñu mbéy uh-huh. nekk fi di critiquer di wax lu ñu xamut ñoo tax may waxee noonu donc nga xam ne benn hectare benn daanaka du def sax ay minutes uh-huh. bu dee xotti ba bu dee bu dee bu dee labour ba bu dee jiba du def ay minutes bu dee xotti ba du def ay minutes bu dee neq ma du def ay minutes donc parce que machine yuy deq sax léegi am na gerte. naa def naa gis nga ko. voilà donc ak machine yu becc sax gerte. xanaa firnde yi moom am nañu soxla. mais donc pour pour walla ne rek. Mhm. président dëppale mbay ak jamono moo tax mu wax loolu mu ne ñun suñuy rapport ak mbay mi dañu war a xoolaat soppi mbay mi buggoon naa ko wax tey ci benn télé. mu rëcc ma ba tudd ma ko waaye dinaa ko wax ci sa rajo bii mooy waxtu wu ñuy wax xale tey kuy jàng ne ko jàngal bu baax ndax boo jàngul da ngay béy xam nga loolu li mu tekki woon mm-hmm. nekk loolu ne mbéy lu baax la mm-hmm. li mu tekki woon mooy mbéy exact te tey bu euh, très bien mais sanction négative mm-hmm. tey nag bu dee dañoo bëgg mbéy doon fi ñuy jaar suqaliku mbéy doon fi ñuy sose xëy yu ëpp ndaw ñi mbéy doon fi ñuy sose sose xëy yu ëpp pour jigéen ñi ndax loolu la président indi il faut mu doon meneen mbayin waaw mais wax ji wax ji président wax euh, wax ji neex na mais est-ce que ànd naag euh, ay jumtukaay. mais mais sëñ bi. mais 200 tracteurs laa fa gis. waaw mais diggante 2012 ak deux 2019 wala 2020 2000 ñaari junni tracteurs dugg na ci réew mi loolu bu ko fàtte li ndollent la rek buñaa la ak wane ne bu nee nañ sopp mbéyin mi. wax na lu yenu maanaam ndax mu ngi joxe ay moyens ah, gunge nit ñi ci jumtukaayu tax ñu mën a sopp mbéyin mi mhm. loolu donc mooy mbir mi. d'accord léegi kon agro business aussi. ma leeral ko tekkiwul rek ay hectares yi yu kenn nit moom déedéet agro business mooy comme business mbéy comme affaire maanaam mbéy comme cosaanu walla buntu xéewal ay koppar yoo xam ne kiy jaay moom lay am kiy transformé moom lay am borom usine bi moom lay am et cetera. comme kon agriculture comme business moom la ñuy wax agro business agro business boobu nag dafay ànd ak mbéy mu professionnel maanaam mbéy moo xam ne xarañ nga daanaka kenn du ko nattable ci jumtukaaya ci xam-xam ba mbéyin mi waxtu wa ngay ngay béy looy béy noo koy béyee xam déjà ko foo koy jaayee balaa nga koo béy loolu yëpp ci professionnalisme la bokk kon président bu ne agro business. loolu la dégg foofu nekkul rek euh, affaire béykat bu mag bu dikk fële di béy déedéet ni ñu war a xarañalee mbay mi loolu mooy agro business. kon ah, béy bu ndaw ko dina ko def. béykat bi dina ko ah, mais agro boobu tamit euh, est-ce que secteur la boo xamante ni tey euh, niñ ko war a niñ ko war a régler niñ ko war a surveiller est-ce bu Sénégal def na ko. waaw def na ko ndax indi na ay sart yu mu war a doxee moom agro business boobu am li ñuy wax code des investissement benn téere la comme nga ne constitution rek bu ñu dëxañ matuwaay yi nga xam ne yépp moom la nguur gi jël pour defal ko ci yombal ak jàppandal pour sawarloo sénégalais bu fi nekk mu investir waaye sawarloo ku bëgg a jóge bitim réew yor ay kopparam bëgg ñëw indi ko la euh, fii ci euh, ci ci euh, Sénégal investir fi pour am ci dara mais aussi pour que waa Sénégal am ci dara kon loolu moom rek la bu dee mbéykat ndaw bi mu ngi leen di subventionné maanaam di leen dooleel pour ñu mën a béy. d'accord mais agro business boobu nan la mën a créer emploi. mais est-ce que li muy créer emploi na. mais bëri na moo ci exemple bu dee agro business bi may wax en bu béyu nawet la ñuy béy mbéyum noor la ñuy béy muy culture horticole. horticole muy lëjum. Mhm. ak ay fruits. mais mbéy yooyu. hectare boo ci jël dalay jox diggante ñaar fukki tonnes ak juróom ba fanweeri tonnes ci benn hectare mais kilo la jum sëñ bi moo ëpp toujours kilo suuna ak mboq ak base gerte. kilo fruit naka noonu yamu ci horticulture da ngay bay mën nga bay ba ñetti yoon ci at bi ñetti campagne noor bu sedd bi noor bu tàng bi ak nawet bi waa sëñ bi ki ëpp li muy béy limu muy bay ci at bi ëpp la li muy am ci hectare bi ëpp la njëgu kilo yi li muy ñorle bu boobaa mais nooy def ba du la ëpp njariñ moo tax bu dee nawet ay la yoon benn hectare bi pour mu saafara soxla ki ko bay sax coow la man Saalum laa dëkk maire laa fa xaw naa laa mun a wax na ne xaalisu gerte lañ ma ngénte comme ni ko mbari di waxee waaye maa la gën a xam ni daa mënta ñàkk waaye bu dee ay koppar nga bëgg moom bëgg a jël métier def ko mbéy def ko métier moom du mbéyum nawet ngay jël kooku moom maa wax. bayum noor ngay jël. c'est clair. d'accord léegi. donc moo tax ñu war a boole ñaari. boo béyatee noor nawet ba mu wàcc nga am sa gerte ak su suuna yu ni mel noor nga dabbali ko. d'accord def may moom kon noonu moo tax ñuy wax agro business moo ah, euh, tax. benn hectare boo jël. juróom ba juróom benn xale mën nañ caa yëngu te bu ñu jaayee gis seen bopp. kon bu ñu nee emploi ci agro business lay jaar. wax nañ dëgg. waaw accord mais docteur tamit euh, agro business boobu ngay wax si la ñuy rebondir ndax dafa am ñoo xamante ni tey euh, dañuy liggéey ci wàllum mbayum dër euh, mais ñoom li ñuy bay si hectare bëriwul mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ay potoog xeet googu ñoom nee nañu agro business bi moo leen sonal rawatina ñi nga xam ne tey ñoo nekk jëm ñaajo nee na ñoom lu leen mën di daal ñooñu ñoo leen ko teg lan ngay tontu ci loolu. non man amul compétition seen diggante li tax mooy boo jëlee lu ci mel ni pomme de terre ñoom bu doon téeméer la ñuy soxla ci pomme de terre ñoom béykat yu ñaay ñeent fukk yi ba ñeent fukk ak juróom ñun loolu la ñu xayma ci seen production ndax ñoo leen di ñoo leen di jox jiw xam nañ bi ñu joxe ñu ngi suivre tool yi ñu ngi def enquete kon am nañu ay base yu wér pour xaymaal la li ñore ci ñaay ñaay nag mooy diggante Sangalkam gi ba buntu ba ca Gàndong ba ca buntu Ndar diggante muy muy muy téeméeri kilomètre ak juróom-ñetti fukk yaatuwaay bi doon diggante géej gi ak jéeri ji fanweeri kilomètre loolu lañ tuddee ñaay loolu mu ñu fi ñorle téeméer bu ñu soxla ci pomme de terre ñeent ba ñeent fukki ak juróom juróom fukki ak juróom ba juróom benn fukki yi agrobusiness yooyu ñuy wax ñoo koy béy ci pomme de terre nag laa wax buñ ko béyee ba pare denc ko ñooy njëkk a ñor la kon mois de janvier loo fi xewloo ba février ba léeg-léeg sax mars ci pomme de terre agrobusiness yooyu ñoo ko ndax day fekk ñii ñor la wuñu ndax ñoom ñu ngi ji ay décembre ak i janvier ñoom béykatu ñaay ñi gën a teel le fin novembre la ñuy ji waaw ndax ñun soxla wuñu teel a am pomme de terre teel a arrêté importation ah kay kon soxla nañu leen yemu ci ñoom bu ñu defee jeune ñu arrêté leen ne léegi na béykat ndaw yi jaay bu ñu jaayee ba jeexal. Sénégal moo tax su ñuy wax India man dem India yi man dama ko rafetlu du ay India rek société boobu société sénégalaise la société de droit sénégalais la maanaam ay sénégalais ak i Indien ñoo bokk sos ko mën nga dem gëstu ji ko di nga gis waaw donc ñooñu ñu ngi investir di bay ñi investir fii nag ci usines yi. ak ci nu mu tuddati eh, ci ci ci yi ak ci électronique ay Sénégalais yore ay milliards lu leen tere jël xaalis boobu investi ko ci mbay mi rawat na ci pomme de terre ak yu ni mel kan moo leen tere dem béyi pomme de terre comme ni ñooñu kan moo leen tere def ay chambre froide yu mag di fa denc pomme de terre comme ni ko ñooñu defee fii ma jox ma jox ma jox la exemple xaar rek rek ma jox la exemple fi mu nekk nii bu ñu tabaskee ñeenti weer ci kanam pomme de terre boo fi xewloo ci chambre fadu ñooñu la génne te bu doon ñoom pomme de terre day jeex. mais ñële ñële ñoo ndaw ñi dañoo amul ay chambre froide. non non non euh, nañ leeral mbir mi ma ndaw ñi. waaw ay jàmbaaru fàkkatal lañ maa ko wax xam naa ci lu bari ndax maa ñoom ñooy liggéey te yaakaar naa it ci ñi leen solal robu avocat ba jàppale bi ñu war a jàppale bu ñu amul lépp it lu ci bëri jot nañ ko. ba tey ñu yëggi fañ jógee ci pomme de fi ñu yegg si tey man ci ñooñu laa bokk kon ñoom ñu ngi may déglu xam nañ li ma wax kon man bu faral di am ñoom laa faral dama bëgg leeralaat li may wax dema ne lu ma leen faral faral ñoom ci yaatuwaay li ñuy bay ak li ciy ñor laa wax pour le moment matut li réew mi soxla loolu na leer muy benn ah. am na diir bu ñuy soxla pomme ñoom du ñu ñorle ndax ñoom dafa am waxtu wu ñu taamoo bay loolu kenn mënu ko dindi ñoom ñu may déglu. kon ki nga xam ne mu ngi fi am jiwam tout le temps am ay machine am ay matériel am am ay jumtukaay yu ko permettre mu teel a ji mais ñun dañoo soxla loolu bu ñu sañoon benn doom pomme de terre dootul bitim réew kon bu dee benn weer la it soxla ñu soxla nañu pomme bu ñoree fii kooku ñooñu rek ñoo koy ñorle soxlawuñu leen ah kay. soxla nañu leen laa wax. waaw d'accord léegi xal xal rek ñoom it comme li ñuy béy ñoom béykat yu ndaw yi doyul réew mi bu ñu jeexale soxla nañu sponsor bu sosoo fii encore même bu jógeegul ci ñoom. kon soxla nañu ah, agrobusiness boobu. ma ma daal leen ci denc bi. ñoom diir xaaral xaaral si denc bi ba xam chambre froide non chambre froide xaaral ma expliquer li ci xam mooy ñoom diir bu gàtt ci lañu ñor la lu bari. xam nga nee naa téeméer bu nekk ñoom ñooy ñor la ñeent fukki ba ñeent fukki ak juróom xam nga wax naa la ko. mais ci benn weer wala ñaari weer lay génn tuuru nag kon wax naa dëgg wax nga dëgg war nañu wut fu ñu ko dencal. man ànd naa ci loolu te dinaa la wax li ci nguur gi nekk di def mais dama doon expliquer d'abord ne la mbir mi war ta nekk compétition maanaam jàmmarloo diggante béykatu ndaw yi ak agro business parce que nguur gi moo tànn mix boobu. ñaar ñëpp lañ soxla loolu laa bëgg a leeral d'abord maanaam ñoom ñaar dañoo bëgg ñu nekk fi dund te wér ñun loolu lañ soxla loolu loolu il faut que ko leeral bu nañ léegi nag boo jëlee béykat yi yu ndaw yi comme diir bu gàtt ndax daanaka ñoom dañuy jiyandoo ci lañu ñor la lu bari waaw war nañ leen fàggul bërëb yi ñu ko denc loolu ànd naa ci. mooy chambre froide mooy chambre froide yi loolu lu wér la mais nag bëgg a ne bu ñeen ko réglé loon problème bi rek réglé lay leeral ne loolu amut nañ ko teelu ma ne. loolu wérul ngeen fàggu ko ba pare rek ngeen fàggu chambre froide. très bien nañ ko fàggu pour xam nga pour lan. Mhm. pour que heure bi ñuy bari le bien que loola couvrir lu at mi yëpp ñu bañ a wanteer loola. Mhm. mu bañ a nëb bañ a yàqu. Mhm. kon xam nga xam naa li may wax. man politique ngeen ci def maa ngi ñëw maa ngi ñëw bu ko defee ñu mun di jaay ndànk. di génnee ndànk. di am prix bu baax. marché bi di af. ba ba ñu jeexal. ñi jël kon lii mooy li war a am. d'accord léegi nag lu ñu ci def. waaw mooy nguur gi xam nga ne fi may njëkkee mooy tëbuñu rek am pomme de terre bu tuuru 2012. Mhm. pomme de terre bi ñu doon lekk fii bi ñu doon xewloo. Mhm. mais bitim réew la doon jógee maa ko wax dañ ko doon importe yëpp ah waaw dañ koo fàtte xaat. fan ngeen rek lan la nguur gi def ba pomme tuuru lu rëy. da ngay njëkkee wax loolu loolu dafa am solo xëy na nag waaxu gi walla daw gi ñu nekkee woon. Mhm. ci yokku bu metti production bi. xëy na waaxu bi ak daw bi tollul noonu ci fàggu fu ñu ko denc loolu moom lu am la waaye li ma lay fàttali mooy ñun bi ñuy def lu tax ba baykat yi mën a bay lu bari mu ñor am ay rendement jiwu baax engrais mm. formation ñor la lu bari. mais heure boobu secteur privé dafa waroon a faggu dafa waroon def ay infrastructure de stockage ay chambre froide xam nga pour lan juste liggéey ci xaalis bu weex tàll comme ni ko xale yi di waxee mooy bu ñuy njorlee ñu dencal leen ko ñu fay leen te yow mii may waxal boo amoon chambre froide bu 10 000 tey bu la neexee dem Mboro samp ko fa sa yoon nekkul ci pomme de terre ndax ci suuf lay jur wala ci kaw yow daal la ñor ñu indi la ay tonnes yu nga dencal leen ko ñu lay fay par kilo wala par tonne teg ko fa ba heure bu ñu ko mënee jaay jaay ko daañu am prix bu baax yow yi di nga am xaalis. kon man lan moo tax yéen état bi lan moo tax yéen état bi. invité invité wu leen si secteur a invité bañ invité ba defal leen code des investissements maanaam code code mooy daanaka téere bi ñu dëxëñ ni ni ni ni ni nguur gi euh, euh, xaatimee ni mu bëgg a yombalalee ak ni mu bëgg xiire xiiree secteur privé pour mu ñëw. ci ci ci investir ay yombal jënd la fii ay tax bu dee wàllu mbay boo indee ay matériel mu jóge bitim réew doo fay TVA am na yoon ci xam ne mën nga liggéey nangami at soo ko commencé fay. dañu koy teggil nangami at financement yi mais financement yi secteur privé moo ko war a wuti. état lu wér parce que am na partenariat public privé. Mhm. loolu code des investissements prévoir na ko ba nga xam ne. dafa am ay yombali mu àndal day day tax ba privé bi jàppalante ak public bi gis nga sax PAP 2A bi yaa ngi fàttaliku. Mm-hmm. Euh, ministre Hott mu ngi ko doon wax. mu ne approche partenariat public privé. ci lañ nar a gën a wéeru. Mm-hmm. pour jëmmal euh, PAP 2A ci ñetti at yi di ñëw 2021 2023 kon xam nga ne. nguur gi créé na condition yi. pour que secteur privé dugal loxoom. waaye yemu ci euh, fii ñu jëm nii nguur gaa ngi fàggu moom it ay chambre froide tey ministère de l'agriculture am na ay programme yoo nga xam ne def ay chambre froide moo leen tax a jóg jeexagul président conseil de ministres bii passé nii rek euh, alarba bii passé mhm. jël na ñaari milliards jox ko madame le ministre du commerce pour lu ñu faggoo lu ñu dooree en tout cas liggéey bi ci faggoo ay bërëb yu ñu denc mhm. mais xam nga loolu lu am solo la d'accord kon kon xam nga fàttewuñu leen d'accord tar na nag mais saafara yi ñu ngi ci te balaa yàgg ni ñu ni ñu ni fi euh, euh, importé pomme de terre nekkee léeboon ak lu pen noonu la affaire denc pomme de terre. léegi léegi la fi dañuy tàggoo moom léegi docteur euh, léegi ñi nga xam ne ñooy agro business yi ñooñu lan moo tax tey su dee ñu ndaw ñu ñorle nañ te ñoom amuñu ay chambre froide liñ man mooy mu yàqu wala ñu wanteer ko lan moo tax ñoom bu ñu ñorlee du ñu wax euh, agro business ne leen yéen bu leen jël seen seen seen légume ngeen dugal ko ci marché bi conserver leen ko wala ngeen jël ko ngeen yóbbu ko si sous-région bi pour ngeen xett li ñële au moins de un mois wala deux mois ñoom ñu écoler seen marchandise. si nag exactement wax nga li ñuy def nag loolu lañuy def exactement dafa am rek benn jafe-jafe bu ci am. pour benn xeetu mbay muy soble. mais boo jëlee pomme de terre exactement nii nga wax noonu lay doxee te wax dëgg yàlla mu ngi dox gel bi. ci pomme de terre man loolu mooy sama sentiment. mu ngi dox jafe-jafe yi néew na lool soble bi la problème boobu am. d'accord te ren la commencé. d'accord docteur li ko waral mooy agrobusiness yi nekkuñu woon ci soble. ci pomme de terre rek. la ñu nekkoon wala yu nekkoon ci soble bariwul woon. donc kon dañ cee dugg ren ak doole loolu mooy li am loolu mooy dëkk ay hollandais ñu ngi ci ay ay français ñu ngi ci. ay indiens ñu ngi ci. ay indiens ñu ngi ci hmm. donc. loolu ren la mais sëñ bi xëy na indi na jafe-jafe ñu nag ñu ngi masawu d'ailleurs béykat yu ndaw yi mais nit ñi dugg ci mbéy mi ak doole mais loolu lu ñuy ñaan loolu climat ou environnement bu bu favorable bu bu yombal loolu. bu très bien bu nguur gi créé. mais moo tax ñooñu jóge ba Hollande Hollande nga wax de. Mhm. est que xam nga ne Hollande ñoo dàq bay soble ci àdduna. Mhm. est xam nga loolu. bu baax ah, ah, ah. wala léegi bu ñu demee ba ki ñuy jaay soble. ñaar ba ñetti weer ci diir yi nga xam ne soble bi dafa jeex kii seef ci gàttal nga xam ne patron ci àdduna wala ba bokk na ci patron yi ci adduna ci mbéyum soble bu dee bay ñëw Sénégal di fi béy ci soble est-ce na ma lay wax ne am na lu tax mooy condition yi am na fi dëgg la ci wàllu suuf ak wàllu climat mais surtout ci wàllu ak yombal ak yaatal ak xiir ak encouragé la pour nga def ko tey lu mu indi soble boobu tey mais fii fii la ñore ay sénégalais ñoo ko ñorle sénégalais ñoo ca béy ay sénégalais ñoo ko nar a xéwloo loolu du njëriñ. loolu njëriñ la d' accord jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf euh, directeur bu horticulture euh, moom la ñu invité seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM léegi docteur ñu tënk lu gàtt ci loolu doog wax feneen bala ñuy perturbé wu. ndax bëgg nañoo wax ci exportation bi léegi dama bëgg rek nga tënkal ma léegi li nga xamante ni tey mooy ay chambre froide yéen lan ngeen ci xalaat pour le moment beneen bi diggante agro business bi ak mbaykat yu ndaw yi nan ngeen di fexe ba euh, ba régler problème boobu lan nga si expliquer ci loolu. waaw chambre froide yi wax naa la ni am na programme yu nekk ci ministère agriculture am na programme yu war a door it normalement ci ministère du commerce ndax président joxe na deux milliards pour loolu programme yi nekk ministère agriculture door nañu. ci participer ci defar ay chambre froide loolu mën naa la ko wax ñaar président li mu joxe ministère du commerce. boobaa boobaa pour loolu nu muy demee chambre froide yi. non muy demee nag li ñu jàpp ñun. wala boog ni ñu bëgg mu demee. mooy partenariat public. privé mu am ay secteur privé yu ñëw dugal seen xaalis loolu nguur gi naal ñu dugal ko ci turu béykat yi moo xam kuréelu baykat yi moo xam GIE moo xam coopérative. maanaam ñu seq ko ak privé yi pour réaliser ko ñun noonu lañ ko gisee d'ailleurs programme de relance de culture boobu ma lay wax programme national de relance de l'horticulture nga xam ne ci PAP 2A la bokk pacc la ca prévoir na presque 19 milliards pour loolu. d'accord léegi. donc entre euh, béykat yi agro business. voilà béykat yi agro business nag ñun li ñu gëm mooy ñoom ñaar ñëpp dañu fee war a ne. Hmm. ñun nag béykat bu ndaw yi la ñuy aar ndax moom la ñuy jàppale ci jiw. moom la ñuy jàppale ci engrais subventionné ko moom la jàppale ci matériel agricole moom la ñuy jàppale ci tàggat bu ñorle it dañuy imposer arrêt importation loolu agro business moo koy def dañuy imposer njaay mi ci agro yi nekk Sénégal te béy ko kon loolu mooy kaaraange ci béykat bu ndaw bi pour mottali ko nag taxawale ay chambre froide pour que diir bu gàtt bi ñuy ñorle lu bari muy tuuru ñu mun koo denc ba bañ koo wanteer ak mu bañ yàqu. d'accord léegi secteur privé ñoo non agro business ñoom it comme ñoo ëpp doole ñu ñu ñu def seen production mais bu ñu ñorlee bu ñu defatee ay mesures ci régulation ñu respecté mesures yooyu. mieux boo jëlee soble ni ñu def ci pomme de terre bi war nañ ko mën a def ci soble ñu ngi leen di encouragé kon ñu réaliser ay chambre froide wala ay magasin de stockage magasin aéré parce que soble sax denc ko jafewul. nekkul souvent du chambre froide mën na nekk rek ci zone aérée ay hangar yoo nga xam ne dafa am lu muy bindoo nag ba tax ngelaw li ci jaar te it nga béy soble ba mu ñor nekk qualité mën nga fa teg ay weer te du yàqu. kon infrastructure yooyu ñoom secteur privé bi dugg bees ci soble bi nañu fexe aussi faggu loolu comme ni ñu ko faggoo ci pome de terre bi ba nga xam ne bu ñu ñorlatee lu bari ñu mën koo denc te bàyyi béykat ndaw ñu mën a. léegi lan ngay wax ci qualité pomme de terre bi ak qualité soble bi ñu béyee fii. loolu moom baax ba yegg ci loolu rek moom la. lu ci waay wax leneen da ngay wax lu ko ne lu koy firndeel mais fi mu nekk nii at mu nekk juróom-ñeenti weer pomme de terre Sénégal la ñuy dunde neuf mois. mais daañu dañoo mën a ñàkk lekk pomme de terre. yow xam bi nga xam sénégalais yi. yow mën nga leen tëj fii di leen xol di leen forcé pomme de terre bu baaxut juróom-ñeenti weer. yow yow sénégalais bon temps gëm nga ni sénégalais. loolu dina fi am loolu mënul nekk ah, non mais bu doon tey par exemple docteur nee nga bu doon docteur waaw mënul nekk mais docteur boo ne moon tey euh, lu jëm ci wàllum euh, exportation xam nga tey par exemple tey am na loo xam ne même ñun bu ñu ko nangoo sous raison bi yéen bu ngeen ko bëggoon def duñ ko du ñoom mën nañu ko bañ a nangu léegi pomme de terre ak soble tey ndax mën nga xayma wala pomme de terre euh, ban quantité la ñuy jëlee fii di ko yóbbu ci sous raison bi non xam nga pomme ak soble bokkul door na soble bi mooy Hollande jëlee fii li ñuy wax oignon vert di ko yóbbu am na oignon bii euh, hollandais yi di produire fii am na ci lenn lu ñuy yóbbu foofu seen dëkk. mais ñaari mbay yooyu. marché Sénégal moo ko gën a tax a jóg. li ñuy wax import substitution maanaam dañu koy béy ndax li ci Sénégal yi di consommer dafa bari donc jaay ko bitim réew. nekkul li gën a tax a jóg. ñeen mbéy yooyu yi nga xam ne. pour ñu ngi def qualité mbéy yi nga xam ne loolu moo ko gën a tax a jóg li ëpp ci li ñuy jaay téeméer boo jël ñu jaay ko bitim réew juróom benn fukki Europe la jëm Europe. France Belgique Espagne Portugal ak yu ni mel ñooñu foog nga ne di nga leen jaay lu dul qualité. ci téeméeri junniy tonne ak fukk ak ñett yi ñuy jaay bitim réew 60 pour cent yi. téeméer boo ca jël juróom-benn fukk yi Europe la jëm 40 pour cent yi moom la ñuy jaay Afrique. kon loolu mandarga la pour won la ne li ñuy produit Sénégal qualité la. parce que bu dul woon loolu du fa dugg. d'accord docteur léegi euh, boo ñu doon xaymaal perte bi liy yàqu lan nga ñuy wax. waaw perte bi moom bari na. daanaka vingt cinq téeméer bu ñu ñor la. ñaar bu téeméeri kilo la ci horticulture rawatina maraîchage ñaar fukki ak juróom yi kilo yi dañ koy ñàkk day nëpp wala mu yàqu donc juróom-ñaar fukki ak juróom mooy li ñuy xewloo. waral yàqu li ko waral mooy ñàkk fu ñu ko denc donc loolu moo ca jiitu du loolu rek nag ndax it dencin yee it euh, am na ci lu tuuti loo xam ne peut-être mën na nekk ba 5 pour cent loo nga xam ne ñenn ñi dañ koy def euh, ndax di yàkkamti euh, deqi pour jaay comme ni ko yenn sama mbokk tukulóor yenn yu yu doy waar yi di waxee naan soble di ñor ñoom ñooy ñor bu bu bu bu bu bu desee tuuti pour mu ñor fekk marché bi af marché bi neex prix bi neex ñu gaaw deqi ko dem jaay ko. d'accord mais xam nga xam nga loolu bu ñu koy dencee seen kër. du yàgg mu nëb. Ah, d'accord mais docteur man euh, dafa am loo xam dama ko nemmeeku dafa mel ni yéen euh, ministère bi ñu denk wàllu mbay mi euh, moom mbirum ceeb mbirum gerte mbirum ñebbe dafa mel ni que la gën a farataal. ka li nga xam ne tey mooy mbayum mbayum noor mbayum dër euh, ñun loolu la ñu gis mais est-ce que fulaak fayda beeg farataal gi nga xamante ni tey euh, ndax ñun mbirum gerte gerte gerte gerte toni gerte toni gerte toni ñebe toni ñebe ce que taxawaay boobu mu am noonu am na ko ci horticulture. Euh, ay la yéwén nag depuis président nekk fi 2012 ci nga xam horticulture day waa Sénégal tamit sant yàlla. waaye bu doon lu ñuy noté. da nga naan premier faire maanaam mënees na ko. yokk bu baax nag. moo tax bu ñu nee horticulture mooy parent pauvre bu agriculture mooy li nga wax noonu rek man ànd naa ci ma ma leer dooleel bi ni mu amee 2012 ak léegi kenn sa xalaatee ni dina demee noonu. président moo ko def. ba mu mu indi yi ñuy wax ne ni ñu koy def kon xam nga résultat am na. Mm-hmm. mais boo seetee doole ji ñu waroon a fi ñu waroon a yegg ak horticulture. Mm-hmm. fi ñu waroon a yegg laa wax natt ba. waaw des na lu bari te de te te fi mu desee mooy ci jàppale gi kon loolu man ànd naa ci ak yow. maanaam ni ñuy jàppale béykat yu ndaw yi. ci mbéyum nawet bu nu ko doon jàppalee béykatu ndaw ci mbéyum noor kon kenn waxatu ko moo tax fu toll maa ngi koy wax xëy na dama jox occasion pour ma waxaat ko dama jàpp ne aussi équité mooy yemale boole na ci ñu gën a jàppale horticulture ci fànn yëpp ci jiw yi ci engrais ci fi ñu ko denc ba ci service yi ko yor ay moyens dañ dañ koo manqué kon loolu man ànd ci mais nag mënumaa euh, wax nañ ñu yokk te rafetlu ma jéego yu ama am solo yi nga xam ne kenn mësta xalaat ni dinañ fa yegg mais boo xoolee li ñu wax ci tubaab potentiel moo tax may waxee nii potentiel maanaam doolee horticulture dafa mag ba nga xam ne ëpp nañoo bay luñ ci luñ ci jël ci soxla rek toog déedéet comme am nañ ci doole suñu climat nangu na ko suuf si ko nangu am na fi bambar yu ko def am na fi mais nañ ci béy luy tuuru wut fuñ ko denc li ñu jaay ko bitim réew bu ko defee non seulement daañ dund mais dina koppar bu bari dina dugg ci réew mi jóge ci li ñuy jaay bitim réew bu dee soble bi bu tuuroo war nañ ko mën a jaay ko diwaan wala Burkina wala feneen donc. te diggante réew ak réew wàññi nañ taxi. exactement et puis ZLECAf ñëw na. mooy li ñuy wax zone de libre échange économique. maanaam milliard Afrique la yëpp milliard doomu aadama ñoo fi yeewoo ak ñaar téeméeri million yoo nga xam ne ñun euh, euh, taxes yooyu li ñuy indi. mooy ubbi réew yi yëpp. jëflante bi ci waaye njënd ak njaay. yomb loolu la ZLECAf wax. non non même bu dul loolu docteur euh, Sénégal ñun li ñuy jëfandikoo. Ah! soble pomme de terre nawe carotte maam dafa nekk loo xam ne dafa bari bis bu nu xëyee ñoo koy jëfandikoo. Eh, exactement kon xam nga ni. béy ko ba mu tuuru warta nekk défaut qualité la war a doon kon bu ñu demee tey loolu boo génnee soble ak pomme de terre yeneen yi des na ay jéego te du climat bi moo tere mu ñu am ko du béykat yu doy ñoo tere ñu am ko am nañ ko du suuf su doy moo tere ñu am ko mais jàppale bi ci horticulture des na yàlla dogal na d'ailleurs am na. FAO benn xayma bu mag bu mu nekk di ko def fan yi ak ñun mooy xayma liy jëm ci xaal bu koppar ci mbéy nu mu toll ak lan moo ciy dem ci horticulture man nee naa leen commencé ngeen ko waaye mën naa leen jox conclusion bi balaa ngeen di door sax mooy di ngeen gis ne lu neew lu reelu bu ngeen tuddee xayma bi bu pare bu ngeen tuddee lim bi dina dina reelu maanaam dina néew ba reelu man wax naa leen ko te fin juillet la conclusion yi di ñëw xëy na daañu am occasion waxaat ci. man wóor na ma ne natt bi dina génn nii war nañoo yokk bu baax. horticulture ay moyens ndax doole ji mu am ak njëriñ li mu amal réew. dëgg la jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf euh, loolu am na solo. Euh, état bu Sénégal nag moom moo si war a def ay moyens moo si war a euh, def euh, taxawu ndax Sénégal li ñu koy jëfandikoo dafa bëri li nga xamante ni tey mooy ay légumes ndax Sénégal moom kenn ku nekk xam na ko pomme de terre rek yu demee noonu mais nag docteur Sénégal lañ fi produire production bi yokk na mais yow da ngay faral di wax ne horticulture secteur la boo xamante ni tey horticulture dafa compétitif ba pare productive lan nga bëgg a expliquer ci loolu. am na benn partie ci sama ci jiitu ji. li ma ko doon jéem a firnde. ma ko doon jéem a firi du moins. mooy productive mooy liñ ci ñorle. non liñ ci ñorle. liñ ci ñorle waaw. dafa woom. waaw dafa woom loolu maanaam benn hectare. nga ñorle ci ñaar fukki tonnes ak juróom bu néewee bu néew jëm ba fanweeri tonnes li ma lay wax ni pomme de terre ñu ngi koy def trente tonnes à l'hectare fii ci ñaay waaw sëñ bi ndax loolu yem naag gerte. nga xam ne pour nga am benn tonne benn. léegi xoolal 30 contre un sëñ bi loolu kenn mënu koo. Euh, très bien loolu mooy productivité bi li ma wax dafa compétitif mooy dafa am valeur dafa am njarte kilo la jum boo ko tegee moo ëpp toujours kilo xeetu mbéyu nawet yi muy suuna basi mboq gerte foño saaño boo ci jël ñebe mais loolu am na solo donc productif et compétitif ma yokkaloon la ci ne li ñuy wax ci tubaab intensité culturelle maanaam moo ma ko doon xayma dama naan li mu li mu yoon yi nga mën a yoon yi nga mën a béy ci biir at mi lim bi mën naa dem ba ñett mën na ko ëpp sax nag mais nawet benn yoon rek nga mën a def ci at mi. ban moo gën a noppale. mbéyam dër moo gën a noppale mais man sax boo gisee ndax aar la aar. boo rombee toolu pomme de terre da ngay da ngay kontaan si bi dafa rafet. toolu soble boo ko séenee. da naan mais donc liggéeyam bi. Hmm? te loolu ci béy lu mu tuuti tuuti mu barkeel. d'accord ndax ndax rendement boobu ma lay wax. mais ah. nekkuma nag di opposé mbéyum noor ak mbéyum nawet ci esprit wu lañ def bii bàyyi bële loolu aussi il ma leeral la ko dama ne ñun suñu réew diversification des cultures la woote. maanaam wuutale xeetu. mbéy yi ba njëriñ li landi yaatu Sénégal loolu mais dama lay won ni effort bi ñuy def ci nawet. fu ne nañ fa am taxawaay rek. très bien buñ ko defoon ci mbéyum noor mi. kon léegi lépp sotti. maanaam loolu laa bëgg a leeral daal jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf euh, ndax waxtu bi li si des bëriwul yow yaay directeur bu horticulture léegi euh, tabaski bi ñu dëgmal ndax mën nga jox sénégalais yi lay déglu ay assurance que ne pomme de terre bi ak soble si dina tuuru si marché bi ba pare du du du non seulement dina am kon dina doy yemu ci dina baax mais du seer loolu nag moo taxoon président di soutenir béykat yi mbir yi bari baax te bañ a seer ndax marché moom dafa am loi offre la ak demande foo gisee prix jóg na rek mooy li ñuy jënd néew na ñi ko soxla bari na foo dégg mbir bi prix bi am na rek mooy li ñuy jaay daa bari ñi ko soxla gën a néew loolu mooy loi offre ak demande kon loolu nag moo xew ci jamono bii kon xam nga bay bi ñu ko bay ba mu bari kon xanaa am na njëriñ dëgg la nag ndax bu doon loolu prix bi dina seer te nee du seer dëgg la nag béykat bu ndaw bi warta loru comme li ñu amee jafe-jafe fan yi moom it wax dëgg yàlla warta loru moo tax ma ànd ak yow ci ni gunge état bi ak secteur privé bi ci ñoom. war naa taxaw ci régler affaire dencukaay yi. d'accord jërëjëf a jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf euh, yow yaay directeur bu horticulture léegi nag euh, yaay tamit maire bu laat Latmingué ñu wax benn question ci li nga xam ne mooy élection locale yi fan yi ñu jàll gis nañ def nañ benn code bu yees. code bi yees bi nag li si soppeeku mooy léegi li nga xamante ni moom mooy maire yi ak conseil départementaux yi léegi dañuy xam ki nekk tête de bu dee moom moo gagné dañu xam ne moom mooy nekk maire wala moom mooy nekk président conseil départemental loolu tamit euh, mbir la moo xamante ni mu si bees la yow nga nekk maire lan moo ci sa xalaat. waa man loolu dama ko lu bu baax ndax dama mos di contre euh, disposition yu njëkk ya man ànduma ci woon li tax ànduma ci woon nag mooy pour man li ci daan xew façon détournée ci cas mu doon xew bien sûr du yëpp fi mu daan xew façon détournée tànnu askan wi la woon. mooy ñu wote ba gañe bi ñuy def liste waa ji nekk tête de liste majoritaire ñëpp jàpp ci seen bopp ne bu ñu pare kii mooy nekk maire maire sinon du jiite majoritaire ok ñu wóolu ko kon jiital ko ngir loola mu campagne ngir loola def ci ay moyens loolu rek sax xëy na garaawul moyens yi waaye mu dem ci askan wi daagaan baatam teg ko ci programme bu mu nar a liggéeyee bu ñu ko dénk dénkee ñu dem ba list boobu gañe ñu bëgg a jaar ci ay corruption ak ay jënd jënd conseil ak génne ay millions pour def loo leen lu waroog li askan bi décidé woon loolu dama jàpp ne façon la détournement wu kàddu askan wi la ko moo tax mosuma cee ànd moo tax bu loolu réforme bi ñëwee dama ci kontaan te occasion la pour man ma féliciter président de la république ak gouvernement bi yëpp ci réforme bu am solo boobu ñu indi. bu ko defee bu ñuy woteeti nit ñi day doon rendez-vous comme li président de la République di def ñu ne c'est un rendez-vous d'un homme avec son peuple voilà bu ko defee fële mu nekk un rendez-vous d'un homme avec sa population. locale bu ko defee ñu tànn ci doomu gox gox goxaan yi. Mm-hmm. doom bi ñu ci gën a wóolu. ñu dénk gox ba. docteur fan yi gis naa nga teg euh, benn premier pierre benn estade euh, municipal foofu noonu euh, lan nga si mën a wax ci projet boobu. projet boobu li ma ci mën a wax mooy que maa ngi ci sant sama borom ci door bi ma ko door di ñaan suñu borom gunge ma ci ba mu yegg ak jàmm ndax cadeau la bu ma yàgga bëgg a jox sama askan rawatina sama ndaw gox. cosaanu projet bi mooy euh, euh, laaj wala sàkku bu ma ko sàkk woon ci nguur gi ndax xam suñu commune yu bees yi nga xam ne comité rural la woon amuñu ay ressource ay budget yu mun a def stade loolu na amu fa mais comme ñun tamit marketing territorial bi ak dox partenariat ak dem ci nguur gi pour mu jàpp nañu xëy na suñu toogaay may nañu ñu amee ca lu bari loolu lañ def biñ demee nguur gi nangul ma ko depuis 2016 ans pour wax la mu yàggee pour ñu defal ma stade municipal. man ak nangal ma la woon commune nangal ma ak commune bu ñuy wax Touré Mbond. waaye jafe-jafe yi amoon ci wàllu budget retard yi ak AGETIP ñu toog ba léegi. defuñu ko mu waroon nekkoon stade bu 90 milliards. Euh, astafurlah 90 millions. Mm-hmm. man nag li ma bëgg a def sa gox ba mooy stade omnisport wala complexe. sportif maanaam nga xamee ne à part stade bi fi nii ndi toog gradin yi ak univers terrain beeg yooyu pour football dama faa bëgg def terrain basket terrain handball terrain volleyball fu ñuy defee haltéro ñii di xam nga foofu ñun dañoo bëgg làmb donc suñu mbër yi di am fu ñuy entraîner ak yu demee noonu kon eetu xeetu sport boo nga xam ne rek doomu la nga bëgg nañ ko ñu mën ko faa def pour que ñu mun a caajaat jëm kanam waaye nag na leer damaa door liggéey bi rek ak site bi comme site bi un hectare lañ ma waxoon man ma délibéré trois hectares sama moyen bopp dama koy culture def ca buntu xale yi door nawetaan yi foofa bu ko defee bu nawet wàccee nguur gi démarrer ma travaux yi. d'accord léegi léegi docteur ndax candidat nga ci élection yi ñu dëgmal ci mairie euh, bu Latmingué. waaw loolu moom euh, doléance askan wala. toll na waxtu man comme politique du sama métier. te loolu waxtu ma naan damay seet ba xam. waaye seeni i pancarte yor ne ne du fi amee candidat rek. par force par force moo tax candidat laa. Uh-huh. moo tax euh, fekkee ko ak jàmm ak wér moo tere ñu jotaat ci mairie bi bu soobee suñu borom. jërëjëf ñoo ngi lay sant di la gërëm euh, monsieur le maire. jërëjëf maa ngi gërëm di sant di gërëm réew mi FM. ak mboolem mi auditeur am. jërëjëf euh, docteur euh, Macoumba Diouf mbo mbokk yi moom la ñu invité woon mooy maire bu Lat Mbengue nekk directeur bu horticulture ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci disponibilité am euh, mbokk yi Abdou Khadir Seck moo nekkoon ci kàddu gi Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi yéen a ngi doon déglu seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ci rajo réew mi FM jërë ngeen jëf jàmm ak